wóor la ni kon fi ne jàmm bi bu ko yoon rek chaque jour di jël ahousu billahi mina sheytaani rajim jëmmi ahousu billahi mina sheytaani rajim di ko liggéey soixante-dix par jour maanaam sunu borom dana ko musal ci seytaane ak mboolem luy lore ahousu billahi mina sheytaani ahousu billahi mina sheytaani rajim chaque jour mu def ko soixante-dix sunu borom dana ko musal ci mboolem saytaane ak mboolem luy lore boo ñëwee ci bismillahi rahmaani rahim sëñ Maodo bismillahi rahmaani rahim baagi boobu maanaam araf wu ne soo ko waxee ñu dindi la ci ñetti junni yi ñaawteef bindal la ci ñetti junni yi yow. est-ce moom bisimilah rahmaani rahim. Hmm? bisimilah rahmaani rahim fi ne boo boo boo boo julli woon ba pare rek. Hmm. nga def bisimilah rahmaani rahim bisimilah rahmaani rahim 19 fois mboolem malaayka yi nga xamante ne ni ñooy zabbaani yoone yi garde sawara doo leen teg bët sunu borom dana la musal ci ñoom. bisimilah rahmaani rahim boo boo demoon ba tëdd jot. nga def ko 21 fois boole koog laa hawla wala quwwata illa billahil azim maanaam guddi googu doo ci am deewu mbetteel te sunu borom dana la sàmm ba keroog ngay ngay ngay yeewu. ci basmala bi ci basmala bi. bismillaahi rahmaani rahiim googu boo ko bindoon téeméer tey jii nga def ko ci sa oto oto boobu sunu borom dana ko musal ba du def accident. bismillaahi rahmaani rahiim boo ko yéegeeg daaba yéeg ci oto toog ni bismillaahi rahmaani rahiim toog wax alhamdulillaahi rabbil aalamiin suñu borom dana la dimbali ba oto boobu lépp lu muy daw da nga ay tuyaaba lay doon ba keroog nga koy wàcc. bismillahi rahmaani rahim boo ko boolee xasbunallahu wa nihmal wakiil maanaam bismillahi rahmaani rahim fukki araf la ak juróom ak juróom-ñeent xasbunallahu wa nihmal wakiil fukki araf la ak juróom-ñeent benn bu ci nekk nga bind ko douze mille dix-neuf mille maanaam da ngay bind bismillahi rahmaani rahim dix-neuf mille bind xasbunallahu wa nihmal boobu nga def ko boole kook sam-sam sa njaboot nga di leen ko jox ñu ci sangu di ci naan sunu borom da leen dimbali ba lé loo xamante ni ndokk la ñu lii nu mu ko mën a dalee ak lii kañ la ko dal yooyu sunu borom dana la ci musal dana nu musal ci saytaane dana nu musal ci jinne dana nu musal ci bismillahi rahmaani rahim loolu alxuraan la alxuraan la d'accord mm-hmm. léegi léegi salawaatu ala salawaatu na bi